bu ñu wërsëgalaat ñu dajewaat ci am néegam di mbab téeréem ci biir weer wu tedd wii di shahru ramadan tey nekk ci suñu fukkeelu daje ak ñeent loolu nekk ay ngëneel yoo xam ne nii ab yonentam daawul den di ci ñaaxaate su ko defee bokk na li ñuy ñaan suñu boroom jalla wa ala yal nañu nangul suñu jataay bi mboolem li fi jógee ak ña koy déglu fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yal na yàlla boolu ñu ak ñoom ci ñooñu alquran te fayal ñu ñi nga xam ni ñooy fexe bañ jot ca ca groupe ya ak site ya ak suñu télévision bii di Islam TV te it fay képp koo xam ne da leen di jàppale kon incha allah ñi ngi bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بروم جل وعلا مني وقالت اليهود ما غي وخ يهود يدي والنصارى ak ña nga xam ne dañoo nekkoon ay nasran ni chrétien ya nahnu abnaullahi wa ahibbauh ñun day ñooy doomi yàlla ñun ñooy ay soppeem qul falima yuazibukum bi zunubikum nee leen moo lu tax mu leen di bëggal ci seen bakkaar yi bal antum basharun mimman xalaq bal nekku leen lu dul nit ñu bokk ci ñam bind yaxfiru liman yashaau wa yuazibu man yashaa mooy jéggal ku ko neex di mbugal ku ko neex walillahi mulku samawati wal ard ñeel na yàlla moomeelu asamaan yi ak suuf wa ma baynahuma ak lépp lu nekk ci diggante bi wa ilayhi almasir te ci yàlla la lépp di mujj yaa ahlal kitaab e yéen ñi nga xam ne da ngeen jotoon téere qad jaakum rasuluna dikkal na leen sunu yonent day yubayyin lakum ala fatrat ala fatratin min rusul mu leen di leeral ci dog goo xam ne nii dogoon na ko yonent ya an taqulu ma jaana min bashirin wala nazir ñi day ngeen bañ a nekk di wax naan ñun dikkaluñu woon ku ñu ku ñu doon bégal wala ku ñu doon xub ko faqad jaakum bashirun wa nazir dikkal na leen ku leen di bégal ci àjjana di leen xupp di leen maytuloo sawara wallahu ala kulli shay'in qadir te yàlla day mu am kàttan ci lépp lu mu mën a doon mbokk jullit bokk na li ñu jàngoon ci dars yi passé suñu borom mu ne yaa ahlal kitaab laa taxulu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq iin ñi jotoon téere bu leen jéggi dayoo ci seen diini bu leen waxal yàlla lu dul dëgg mbokk ay lu dul dëgg rek mbokk mbokk ni li yàq diiney démb ak diiney tey mooy ëppal suñu borom lu ne da koo teg place am heure boo ko jalgatee rek yàq nga li bokk na ci lu yahud yi doon wax mooy ñun dey yàlla dañoo jàpp comme doom yàlla dañoo def ay soppeem ca jàpp ñu ne yàlla leen jur ndax bu dee yahud yi ñoom dañ ne Uzayru la yàlla jur subhanahu ama yaqulun bu dee nasaraan yi dañ ne Isa la yàlla jur waaye nag ñoom yàlla da leen a doomoo boo demee ci yahud yi dañ naan ñooy sha'bullahi al-muxtaar ñooy yàlla bi mu bindee xeet yëpp ñoom la ci tànn bëgg leen sopp leen doomoo leen suñu borom mu ne waaw nee ngeen yéen yéenay soppe yàlla yéenay doomu yàlla lu tax yàlla di leen buggal ci seeni bàkkaar mbokk ca ñu ngi noonu dangay gis ne yahud yu bon yooyu bokk na lu ñuy wax tey di ko wax seeni doom mooy plus jamais ça mooy sunu maam yi fi ñu jaar nañu fexe ba loolu dootu am ci kaw suuf loolu tax ku ne ñeen fi indi njaxas ngir nasaxal doomu aadama yi waaye mbokk suñ borom moo ne woon wa iz ta'azzana rabbukum la yab'asanna alayhi ila alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab suñu borom nee na moo dogu ne ba ba àddina tukki dana yónni ci yahud yi ku leen di teg gën jaatar ci mbugal loolu ñun am na suñu jamono luñ ci fekke fekkek loo xam ne nii suñu jamono la te mooy durant guerre trente neuf quarante cinq bi rek nga xam ne boobu ak léegi daanaka ci ay quatre vingt ans yu lay toll gisu nañ ne Hitler bokk na lu historien di wax lim rey ci yahud yi jege na six millions ci yahud te mbokk six millions en mille neuf cent quarante cinq boo ko doon xool tey ñaata lay doon noonu lañ leen toroxale un peu partout en Europe en Occident bëgguñu yëwu foo dégg ay cimetière yu ñu jalgati rek xamal na yëwu lañ loolee kon soo delloo ci nasaraan yi même chose bu ñuy wax première guerre mondiale xanaa du ci nasaraan yi la amee woon deuxième guerre mondiale xanaa du ci nasaraan yi la amee woon plus de cinquante millions de morts ñoom ñoo defar seen arme ñoo ko dóorante seen biir reyante seen biir suñu borom nag nga leen gis ngeen su doon dégg dama leen a doomoo du ma leen a mbugal te it mbokk nga dégg si na ñun ci suñu diine wala Sénégal da ngay jàpp ne ñi fi nekk ñoom ñooy farandoo yàlla ñu moo ñu wax doomu yàlla de waaye lu ne créé nañ ay football ay du kenn xamul ñoo xamee ni nii ñooy féete yàlla ci ay jaama loole bés bu ne ngeen dégg ci rajo bu lu bees ñu ngi noonu am na bu ma ci dégg ñu ne benn naar dafa ñëw fekk benn sëriñ bu mag ci ñi fi yiitu woon toog benn taalibe bu mag tiim ko di wër rek man ko tey yàlla tey yàlla ci nee na mun a ko waaw sëñ bi kii wax ko ni yow doo yàlla nee na sëñ bi ne ko waaw waaw baax na daa di dem leen ñu ko indil benn siyób sukkar siyób siyób ndox ñu ni siyób ndox ñu ne ko indil peñam ndox peñu peñu sukkar buñ koy def ni sokkat bu ñu jël peñ bi dugal ci suur bi bala yàgg mu seey kenn gisatul peñ mu ne naar bi ànd peñ bi mu ne ah seey na ci ndax mi mu ne ko nag mi ngi noonu ku mun a teqale sukkar ndox mënu maa teqale ak yàlla gaa yi gaa yi fekk fekk loolu benn lépp ci sa cent mille lépp yi nga xam ne am nañ ala kulli xaal bokk di dañu xam ne loolu ñuy wax ne Sénégal li fi yàlla def defu ko fenn sëriñ si fi tëdd jamono bi fi sëriñ bi tëddee li fi guerre mondiale yi am yaay quatorze défi booba sëriñ saa ngi fii dund sëriñ su mag suuf ñuy tàgg yépp ñu ngi dund fii bi ñuy yeew suñu maam yi tubaab bi di leen yeew di leen yóbbu def ay jaam sëriñ saa ngi dund dañ leen di yeew ñu dem géer yi par force kenn xamul ñaata lañ ci rey sëriñ saa ngi fiy dund loolu ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw ba ñaata catastrophe moo fi am ndax yéen a ngi fàttaliku li xewoon Sonacos ndax yéen a ngi fàttaliku li nga xam ne musul am ci àdduna lu dul Sénégal muy bati Dora te loolu bàyyi ngeen ci xel te musul am ci kaw suuf yàlla def ko fu dul Sénégal loolu kon mbokk dañuy bu ñu nax suñu bopp suñu borom yàlla nee na nekku leen lu dul ay nit ci ay nit rek shérif nga am njaay nga santam caam ak lu mu mën a doon loolu sax lu la neex santam ku la neex na la jur nit nga rek ci jaami yàlla yi su neexee yàlla mu bëggal la su neexee yàlla mu yërëm la yàlla jox na ci misaal yu dul jeex jël doomi jël jël ay soxna yonentam mbugal nuux lu doomu yonent mbugal bàyyi muy muy nuux bàyyi yonent mbugal muy ibrahim amma yërmaande mu mooy yërëm ku ko neex dem te ci gënoon a mburu ci kaw suuf muy firawun mu jël jabaram boole ci ñi mu yërëm xatta firaw na xeet bi mooy moom lay lent bi nee na mooy ab mooy mooy abu jëhël abu jëhël nee na mooy firaw na xeet bi doomam ja ànd ak moom keroog ca Badr rey lu bëri ci ay ay ay ay ay sahaba gaañu leen yàlla mu dina ko baaxee muy ikramo ibn abi cher dem tub dugg ci lislaam kon mbokk nañu xam ne suñu digganteeg yàlla mbokk doxu fi coxeel doxu fi dara doxu fi xam nga lu fi dox al imaanu sahih wal amalu salih boo xam ne sa ngëm sell na sa jëf baax na yàlla dina la yërëm ku sa jëf baaxul sa ngëm baaxul ku la mën a jur sawar a nga dem ñu ngi noonu loolu dafa nekk règle boo xam ne ñëpp la ko war a xam borom bi ne maa moom ngóor ak asamaan ak suuf na am moom moom moom moom biddiw yaag suuf saak li nekk ci suuf si nga xam ne bàyyi na fa xéewal yu bëri yu ñu defal ay ay ay place yoo xam ne ay ñuy sànni seen satellite fa la ñu nekk en orbite nga xam ne du ñu mën a wàcc duñu dañuy ànd ak suuf si di wër xéewal yi ci yàlla def nee na loolu man rek maa ko moom waaye nag xam li ne ci yàlla ngeen di dellu na am Sénégalais loolu dof dof léeg-léeg nga dégg ñu ne diw gaañu na ñu ne daañ ko jébbal boromam suba ci onze heures émission ngeen dégg ko loolu la neex defal fu la neex demal bis lu mujj rek mooy yóbbu sa borom rek ilallaahi l-masiir loolu tax ki gën a xel lu ci ñun mooy ki ëpp lu muy fàtte du ko dellu gu muy dellu ci yàlla yàlla waaye foo mën a nekk sa tukki foo mën a nekk ci say jëflante wattaqu yawman turja'uuna fiihi ila allah ragal leen bis bi ñu leen di delloo ci yàlla te yàlla moom ci lépp di mucc al adduna daan nga takk dugal ci bàmmeel allaaxira daan nga dekkal taxawal la sa kanamu borom ñu ngi noonu loolu nga bàyyi ci xel borom boobu dellu si wax ci ahlul kitaab ey yéen waa ahlul kitaab dikkee na leen sama yonente gannaaw ba yonente yi daggee mbokk suñu borom daa commencé woon di yónni yonente yi par benn yonente Nuux mu ñëw waa suuf bañal ko mu alal leen indi Huud waa suuf bañ mu alag leen indi soole ñu bañ mu alag leen noonu la ko defee ba jamono bi mu yónnee ak Ibrahim gannaaw ba nag mu tegale yonent yi léeg-léeg mu boole ñaari yonent léeg-léeg mu boole ñetti yonent parce que daan Moussa ak Haroun ñoo bokk benn benn benn mission bu ñu leen boole woon dañuy gis ne yonent yàlla Ibrahim daje na fi ak doomam Ismaïl daje fi ak doomam Ishaq daje fi ak doomam Yanqub ñoom ñëpp ay yonent la gis ngeen gannaaw ba mën a borom naan suma arsala rusuluna tatra yonent yi tegaloo heure buñ génnoon yonent bu demee rek am bu ko remplace léegi-léeg ñu daje suñu borom xëy xëy xëy yónni Isa ibnu Maryam ba mu fi jógee mu arrêté ak yonent lu jógee juróom benn siècle yàlla yónniwul yonent gis ngeen ba doomu aadama yi daanaka nekk ci réer gu tar borom xam-xam yi desoon doon xemmem yàlla yónni ab yonent te la yàlla nag doog a yónnee yonent bu melul ne benn yonent bu ko diir mboolem yonent yi jiitu woon yàlla da leen doon yónni seen xeet yonent yàlla muhammad yàlla yónni ko ci kaafatal linnaas mboolem nit ñi mboolem yonent yi yónni woon dafa amoon diir bu mu seen yonent yi bu seen moromu yonent ñëwee dañu war a bàyyi dañu yor topp yonent boobu dama jaakum min nabiyyin comme ni ko yàlla waxee la tu'minunna bihi wala tansurun yàlla bi muy jël tellu rek yonent yi heure bu ma yónnee yonent seen gannaaw da ngeen koy gëm topp na am kon seen yonent am na fu mu yemoon amma yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ba ilaa yawmi diin dootul nangul keneen jaamu yàlla lu dul loo roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom mu ne nag dikkal na leen Bachir al Muhammad al Bachir mooy bégal nit ñi ay yéen gaana yi ay yéen ñu nekk ci prison yi ay yéen ndóol yi amu leen dara ay yéen lu mën a doon gëm leen yàlla sellal ko àjjana mu leen di xaar mi ngi noonu waaye nazir du xëppaate ay yéen buur yi ay yéen président yi yéen milliardaires yi yéen artistes yi yéen sportifs yi yéen lu mu mën a doon képp ku ci loolu yitteel ba nga bañ a jaamu yàlla sawara ma lay xaar de lii mooy mission yi ne bashiran wa nazira borom boobu nag ne dikkal na leen bashiran wa nazir te xam leen ne suñu borom yàlla mooy ala kulli shayin qadir yonent yooyu loolu ñu béggale ci àjjana inna allaha ala kulli shayin qadir am na kàttan ci jox leen loolu ñu doon xuppaate ci sawara inna allaha ala kulli shayin qadir yàlla am na kàttan ci mbugal leen yàlla na yàlla fegal ñu mbugalam ci tabal ñu àjjana ñu ngi noonu Cheikh Ousmane
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa iz qaala muusa li qawmi fàttalikul ba muusa di wax xeetam yaa qawmi zkuru nicmatallahi alaykum ey yéen saw xeet fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen is jaala fiikum anbiya bi muy def ñeen leen ay yonent bi muy def ci seen biir ay yonent wa jaalakum muluka mu def leen ngeen nekk ay buur wa aataakum ma lam yu'ti ahadan min alaalamin mu jox leen loo xam ne nii musu koo jot kenn ci la nga xam ne nii ci ay doomu aadama yi lañ mi ngi noonu musu ñu ko jox kenn ci bindaafan yi yaa qawmi ay yéen saw xeet udxulul ard al muqaddasa ay waay dugg leen ci suuf suñu laabal si allati kataba allahu lakum nga xam ne yàlla bind na ko ñeel leen wala tartaddu ala adbaarikum bu leen dellu gannaaw ci seen gan ci seen ndugg ya mooy mi ngi noonu wëlbati ko ci seen gannaaw ya fantanqalibu xaasiriin kon dee di ngeen dëpp doon ñi perte qaalu ya Muusa ñu ne ko hey Muusa inna fiha qawman jabbaarin dafa nekk ci dëkk bi xeet boo xam ne bu mbëru lañu wa inna lan nadxulaha xatta yaxruju minha ñun nag duñ fi dugg mukk lu dul dañoo génne dëkk ba fa in yaxruju minha fa inna daaxiluun ñoom bu ñu génnee ñun dañ dugg qaala rajulaani min allazina yaxaafuun noonu la waxe ñaari góor yu bokkoon ca ña ragaloon yàlla an'ama allahu alayhima nga xam ne yàlla moo xéewal jëm ci ñoom udxulu alayhimul baab ewaay dugg leen ci seen biir ca bunt ba fa ida daxaltumuuhu heure boo xamee ni nii dugg ngeen ci dëkk ba day fa innakum xaaliboon yéen yéenee doon ñuy not wa ala allahi fa tawakkalu te ci yàlla rek ngeen war a sukkandiku in kuntum muminin su dee nekk ngeen di gëm mi ngi noonu bokk suñu boroom dañuy nettali benn ci xew-xewu bani israil ak seen yonent bu tedd ba Muusa alayhi salaam Muusa ñëw génne na bani israil ci Égypte traversé nañ géej gi ñaga ca li ñu tuddee désertu Sina léegi nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala def la nga xam ne nii moom mooy Palestine ak la ko wër wante ne ni tubaab yi ñoo ñëw xaaj ko dagg fa ay Palestine ak ay Golan ak ay Jordanie ak ay gat xamul waaye lépp li ko doon tudde Sham léegi am na ay yéefar yu fa nekkoon occupé foofu suñu borom yàlla nag daal di ne Moussa alayhi salaatu wasalaam waxal sa xeet ñu dem bind naa ni suuf soose yi ñoom ñoo koy dëkki Moussa ñëw wax ak xeet bi avant mu leen di wóoti jihaad mu dëkk leen ne fàttali xiiwulu yàlla ci ñoom ay yéen saw xeet fàttali ko leen xiiwulu yàlla ci yéen ci yéen la tànn def ci ay yonent te na am gannaaw yonent yàlla Yanqub min doon tuddee Israil ay doomam ñu nekk bani Israil yàlla yónniwul beneen yonent ci benn famille ñu ngi noonu beneen famille loolu sax moo continué ba ci yonent yàlla Isa yonent yàlla Yanqub bépp yonent bu ñëwati ci famille la bokk fàttaliku leen bi yàlla def ci yéen yonent yi def leen ngeen nekk ay buur te booba bani Israil yàlla ngi leen di may ñu ngi nekk seen jàmm mu leen di may alman ñu ngi noonu di ay façon lem yuy wàcc ci ñoom di boisson bu ñuy naan asolwa ay picc yu mel ni cokkeer ñu cay jël di lekk may leen am ndox mu neex kon ay buur la xëy ñu góor ci ñu ñu ngi lekk di ñu naan di gaa yi lii ak ngóor la ngóor la waaye mbokk ñun loolu bu ñu koy jàng dañoo war a am kersa mbokk ñun li ñu yàlla defal mosu ko defal xeet yi fi jiitu ba ëllëg kenn xamul waaw loolu tey rek pare mu ne asbaga aleykum niamahu zahiratan wa batina yàlla moo moo xaaga baawaanal ay xéewalam ci ñun xool leen fi ngeen toog yonent bi ak saxaabaam ci suuf lañ daan toog te yéen a ngi toog ci ay moquette xool leen li leen tiim ay ventilateur xool leen li fi nekk ci lampe yi xool leen li nga xam ne noonu ngeen di solo waxuma saxaabatul kiram waaye suñu maam yi rek ci jamonoy guerre yi da nga daan gis kër goo xam ne benn yére moo fa nekk kër goo xam ne ay kër yoo xam ne du ñu génn guddi amuñu leen lu ñu sol xoolal xiif yi yàlla nattoon suñu maam yi tey demal biti boo dem saako teem yaa ngi ragale xoolal tey suñu maam yi buñ ma sànni dem mbaam fas giléem la ñuy war ci désert bi ci taw bi neige lépp di wàcc seen kaw tey yaa ngi xëy dugg sa oto même boo amul oto da nga dugg oto booy dem ñii dem naan dañuy addi jëm ak avion ngay dem gis ngeen tey jii suñu maam yi daan dem àll bi dañ fa daan rek dak ci am ndox xoolal tey yéen rawat rawatina yéen waa Dakar kër gu ne am na rëdd loolee mbokk kon suñu borom buy wax waa bani israil uskuru ni'matallahi aleykum wallahi ñun bu bani israil waxee benn alhamdulilah ñun ñii alhamdulilah la ñu war a wax te yéen nga la waay yéeg leen loolu rawatina yéen ndaw ñi boo juddoo ci xéewal doo ko xam ko juddee doo ko xam waaye mbokk xéewal yu rëy la ñuy dund moo tax jàmbat yab yàlla la vraiment kuy jàmbat suñu jamono tey joxum lu ñu la war a def borom bi subhanahu wa taala nee na jox na leen lu mu joxul ci ñi leen jiitu woon ay yéen saw xeet kaay leen dugg ci suuf bi yàlla barkeel te mooy Shaam ñu ngi noonu waaye ñetteelu suuf ci lislaam gannaaw Makka ak Madina ñetteelu suuf bi gën a tedd mooy Palestine looloo tax ba du daggan du li takk ay bagage am jëm ci benn dëkk jublu jaamu wu di jaamu yàlla ca dëkk ba lu dul ñetti dëkk yi ñu ngi noonu la la la tushaddu rihaal ila ila salaasati masaajid ñu ngi noonu salaasati masaajid yi mooy masjidul haram masjidul aqsa masjidul nabawi ñu ngi noonu yàlla moo ko barkeel baarak na xawla yàlla mu ne moo ko bind ñeel leen moo ko bind ñeel leen yahud yi bu daje ndaw di jàngul diini am leen di wax naan yéen jàngu leen alxuraan yàlla nee na lii nga xam ne mooy fa mooy Palestine yahud yi ñoo ko moom yàlla mu ne kataballahu lakum waaye mbokk yàlla ba mu koy wax yahud yee ko moom ndax dafa wax ñoo ko moom en tant que yahud wala da ko wax ne ñoom rek ñoo gëmoon yàlla ci kaw suuf te mën a doon mooy yàlla da koo waxoon ngir ñoo gëmoon yàlla mais pas en tant que yugo suñu borom mu ne laqad katabna fi zabor min ba'di zikri anna al arda yarisuha ibadiya salihun mooy nit ñu baax ne mel rek tey ji makka day makka ndax yàlla da ko bind pour arab yi la wallahi soo demee entré makka tableau yu rëy ñoo fa nekk mooy yéefar du dugg makka arab bi nga xam ne buñ tappoon ay maamam yéegi ci ibrahim wala ismail yéefar du dugg makka japonais bi jógee fële américain bi jógee fële autrichien ku mën a doon jullit nga boo ñëwee yaa màkk looloo tax ba mbokku Palestine yàlla nga ko jagleel jaamam yi ko gëm looloo tax ba jaam yi di gëm te jamono Omar Omar ibn Khattab gis nañu ne yéen jullit yi xeex nañu ak ñoom génn leen fa yor ngóor ga man demee ba jamono wëlbatikuwaat ba jullit ñi xaw a nasax ba jëlaat ko ci jamono Salih sa sa Salahuddin al Ayyub xeex nañu ba jëlaat Palestine gannaaw ba yi tamit loolee da ngay gis ne bokk na ca président France bu de Gaulle ba mu ñëwee ba ñu jëlaat côté Palestine mu dem ba ci xabru Salahuddin ne ko dellusi nañu Salahuddin dellusi nañu naam dellusi ngeen waaye mbokk yu Yonent bi alayhi salaam nee na adduna du tukki loolu yàlla génne waat jullit ñi ñu xeex ak yahud yi dàq leen ci kaw suuf rey leen tasaare leen ba garab yi ak montagne yi di woote eh yéen jullit yi kaay leen am na yahud yu làqu ko sama gannaaw kaay leen ngeen rey leen mu ne lu doon garab bi ñuy wax gargat nee na gargat boobu ci garabu yahud yi la ala kulli xaal kon mbokk léegi nga xam ne mooy Palestine ñu ko yeyoo mooy jaam yi gëm yàlla loolu it moo tax ba la nga xam ne mooy xeex bañ fee xeex xeexu njuumte la ndax ñu bëri ñu fa doon xeex luñ doon xeex OLMP di moo fa nekkoon day organisation pour libération Palestine xeexuñu lu ci bëri ngir yàlla dañuy xeex ngir arab dañuy xeex ngir suuf waaye mbokk suñu borom yàlla ñi muy jàppali waxoon nañ ko dem inni maakum la in aqamtumu salaa wa ataytum zaka wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana ne yàlla di dimbali mooy mbooloo moo xam ne dogu nañ ci ne bu ñu yoree nguur duñ jaamu lu dul yàlla dañ taxawal julli joxe azaka ila axiri borom boobu nag kon loolu la wax ci yonent yàlla Muusa ci ne dugg leen loolu ah bi nga xamee ne loolu am na ñu ne ko hey Muusa am na ay nit ñu mbëru ñu fa nekk jabbaariin mooy koo xam ne dafa am doole mbëru yàlla bëgg ko ci ay jaamam moom mooy aljabbaar yàlla rek moom droit mbëru ñun nag Muusa duñ fa dugg mukk fii ñoom ña nga fa fexe daal génne leen boo leen fa génnee daal ñun daan dugg gis ngeen bi loolu amee suñu borom nee na amoon na fa ñaar ñu baax mbooloo lañ moo xam ne nii yenn riwaay nee nañ ñett motoon nañ sept cent mille ci jamono jooje waaye ñaar ñu baax ñu tefee daal dina yéen suñu xeet ewaay yi te ñooñu suñu borom mu ne dañoo ragal yàlla yàlla leen baaxe te loolu it xamal ne mbokk bokk na ci mbaaxu yàlla mu baaxale nga bokk ci ñi ragal yàlla yàlla yàlla baaxal nga noonu nga noonu du xam-xam mooy joxe mooy tax nga ragal yàlla na am mooy bunt bi nag waaye nit am na xam-xam te ragalul yàlla du ànd ak ku baax wala ku baax jur la mooy tax nga ragal yàlla loolu yàlla koy xéewal ku ko neex ciy jaama e waaye dugg leen ci bunt bi su ngeen duggee yenee gane te loolu it mbokk mi ngi noonu mooy suñu borom booloo lu bon bon mën na caa génn nañu baax moo taxoon luut doon wax xeetam alaysa minkum rajulun rashid ndax kenn ku baax sax amul ci yéen te malheureusement kenn ku baax sax amul woon ci ñoom gis ngeen keroog bu Moussa di waaraat ca pale firawn borom bu ne qaala rajulun muminun min ali firawn yaktumu imaanahu pale ba amoon fa kenn ku gëm moom moo doon war war firawn kon nga ne leen dugg leen bu ngeen duggee yeneen yeneen gane ca ci yàlla ngeen di wépp su dee gëm ngeen ay ñooñu ngeen di wax jabbaar bu ne leen ragal ndax yéen a ngi jihaat ci yoonu yàlla yéen a ngi wékku ci yàlla te it mbokk suñu borom subhanahu wa taala li mu waxoon mooy loolu in tansurullaha yansurukum su ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbali leen loolu it borom bi waxoon na suuf bi kataba laahu lakum loolu it mbokk muy wane ne yow jullit del wékku ci yàlla yonente bi alayhi salaam mu ne ihris ala ma yanfuka yanfauka wastain billah lépp loo jublu na nga xir rek nga dimbali ko ci yàlla éggéey da ngaa bëggoon ak kër la nga am ak as néew commencé rek kocc kocc mi nga noonu balaa yàgg yàlla mën na la jàppale wàllu commerce ba la wàllu tukki ba la wàllu lu mu mën a doon bépp projet yow fexeel rek dugal nga sukkandiku nag ci yàlla jalla wa ala te xam ne yàlla moom mooy dimbali ay jaamam heure bu ko neexee loolu kon la borom bi wax ak bani Israil ñu ngi noonu Cheikh Ousmane قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni qaalu ya Musa inna lan nadxulaha abada hey Musa ñun fii duñ fi dugg mukk ma daamu fiiha fii ñoom ñu ngi ci dëkk fasdab anta wa rabbuka fa qaatila demal ànd ak sa borom ngeen xeex inna haahuna qaa'idun ñun ñu ngi toog fi di leen xaar qaala rabbi inni laa amliku illa nafsi wa axi Moussa ne ah yàlla man de moom lu dul sama bakkan ak sama doomi ndey ji sama frère bi dama ko léegi bàyyi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin yàlla nga teqale suñu diggante ak diggante xeet bi nga xam ne nii dañoo gën topp qaala fa innaha muharrama ah ah bon waaw waaw suñu la jàngal waaw waaw waaw waaw buñ koy jàngal ni kii ko ngeen jàmmi ni ngeen baal ma da ko jëm a jàng waaw la kulli xaal après Cheikh Ousmane dana ko jàng waaw qaala fa innaha muharramatun xam nga ñaari faasixin yi moom réeral qaala fa innaha muharramatun alayhim suñu borom yàlla ne dafa doon kon nekk lu ñu araamal ci ñoom arbaina sana ñeen fukki at yatiihuuna fi l ard ñu nekk di gëlëm ci biir suuf di wëndeelu fala tasa ala alqawmi alfasiqin ngan la waay ak tiisu bu nekk ci xeet boo xam ne nii dañoo doon ñu gën topp mi ngi noonu mbokk ki nga xam ne mooy bani israil bi leen yonent yàlla Muusa waxee loolu bokk na li ngeen di fàttaliku li ngeen di nemmeeku bu ñuy waxa mu ñuy wax ya Muusa ya Muusa duñ ko wax mukk yonent yàlla seeni sëtit bañ ñëwee loolu lañ doon wax Isa ya Isa hal yastatiiu rabbuk gis ngeen isa amma sahabatul kiram mosuñu woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ya muhammad abadan lu ñuy wax ya rasulullah dangay gis xadis yi ngay gis yëpp qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ani nabii sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alayka ayuha nabi waaye daawuñu ko sàll lu mukk di jaar ci aw turam amma bani israil hey Moussa ya Moussa gis nga dëkk bii ngay wax duñ fa dugg mukk fii ak ñii ña nga fa yow kay demal nga ànd ak yàlla nga dem xeex ñun ñu ngi toog fii waaye du ñu gis suñu fii mukk dem di dugg foofu mbokk gis ngeen bew gi moo tax yàlla tudd leen al maghdubi alayhim yàlla subhanahu wa taala da leen a mere te bani israil yàlla ak seen morom bi lañ yemale waaye malheureusement wa malheureusement ñu ngi tuub di dellu ci yàlla yàlla yàlla boo ñu jàppee lu dof yi ci ñun di wax magaa yi ndax ñun suñu jamono tey amuñu it ñoo xam ne yàlla ak seeni morom la ñemelee waaye nga xam ne day taxaw naan yàlla bu daree def nii dinaa ko poñi yàlla bu xewee lii perte na ah yàlla bu nangam yi nangam ah mbokk loolu Sénégal lañ koy waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ca ay milliers di nit topp leen di leen tàccu yoo xam ne bu ko sahabatul kiram déggoon botti seen i jees ah ñun dañ leen di tàccu si ngeen kon demal yàgg sa borom ngeen xeex ñun ñu ngi toog fii waaye mbokk yal na yàlla yërëmal ñu saxaabatul kiram ñëpp yërmandeem ak teewalam ci ñoom yal na yàlla dolli yërmande suñu mbokk may laaj Fajur Gueye daana wax ne saxaaba yi loo leen gën a xam gën a seexlu ñu jàpp ne ñoo ñoo toog seen place bi ñu jàpp ne tey ñoo kilifa diine yi nen loo gën a xam saxaaba yi day di di gën leen a xeex mbokk yonent bi alei salaam génn na ca Badr ba muy génn ànd ak trois cent ci ay saxaaba waa Màkka ñu leen génne seen kër dàq leen nangu seen jur nangu seen lépp yonent bi alei salaam dégg na waa Màkka am na benn gawar bu caravane bu ñu yóbbu Sham pour jënd ay bagage mu ne waa muhajirun kay leen dem ñu dogal leen ngir jël la nga xam ne mooy suñu àq waa ansaar bu leen nu ñu ko waxee gars yi bu leen neexee ngeen dem bu leen neexee ngir ngeen ngeen ngeen toog am waa ansaar yi gën ànd ak moom ñu dem bi ñu demee ba ci yoon bi Abu Sufyaan booba am yéeféer yéeg na xabaaru yeneen ci bi ngi leen di ga- ga- dogaali mu viiri ak njëg bi waaye am na ku mu yónni ku mën a dawal gile boo ko teel a dem avertir waa Makka ne leen bu ngeen yeexee rek Muhammad dana jël seen dund dangeen xiif ba lekk seeni xar Abu Jahal daal di jóg ànd kilifa Makka yépp ñu indi mille personnes xabaar ba yëg daal di dem ba yëg si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy waa Makka ngi ñëw yonent bi trois cent la yor waajulul woon jihaad ñu ngi waajul rek dogale ak caravane léegi mu dajale sahabatul kiram daal di ne leen waaw yéen lan ngeen xalaat ci ñii dina la ñëw bi ñuy Abu Bakar jóg da ko daal ñun dañoo génn te yàlla tax ñu génn amuñu luñ leen di ragal ñu ngi noonu bu la neexee ñu toog xaar leen yonent bi ne waa mbokk lu ngeen xalaat fekk mi ngi ci nam waa ansaar ndax waa ansaar dañ na ko boo ñëwee madina dañ la aar ni ñuy aare suñu njaboot te tey nekkuñu madina loolu bi mu amee les kilifa waa ansaar Saad ibn Ubaada daal di jóg na ko yu mu yàlla yónni dafa mel ni li ngay laaj ñun nga ci jublu ñun waa ansaar ne waaw yi ah yéen koy laaj ci jublu li seen xalaat mu ne ko wallahi duñ la wax mukk la yahudi waxoon Muusa izhab rabbuka ah inna haahuna qaa'iduun demal yàgg sa borom ngeen xeex ñu ngi toog fii ñun ñu lay wax mooy demal yàgg sa borom ñun ñu ngi ànd ak yéen di xeex maa ñu ngi lay seede ne ñun waa ansaar boo ñu joxoon ndigal nañ leen tey nañ dem xuus géej gi kenn ci ñun des gannaaw boo ànd ak ñun dañuy gis ne dañu nga ak ay xeexkat dañu nga ak ñu mën a mën yàlla yonent bi aleyhi salaam doo ko féex alhamdulillah moo taxit ba ñu xaaree waa Badar ñëw ñu daje ak ñoom xeex la ca xew yéen ñëpp xam ngeen te ñu ngi xewoon ci weeru koor weer wi ñu dund tey di weeru xéewal weeru ubbi xéewal yal na yàlla ubbi ci suñuy xéewal tegg ci suñuy diis gis ngeen borom bi subhanahu wa taala kon bi bani israil waxee Moussa wax ju ñaaw ji mu ne ko ah yàlla man de moom moomulul sama bopp ak sama frère Haroun ñu ngi noonu ñaari yonent dañu ñii daal moom daal lañu moom léegi nag yàlla yàlla na nga tàqale suñu diggante xeet bi nga xam ne nii ay kàccoor lañu te loolu itamit Moussa dafa dafa tàngoon mooy ki gënoon a tàng ci yonent yàlla yi dafa tàngoon tàngaay boo xam ne fiiru diina la te yonent bi alayhi salaam wax na ko nee na yàlla dafa am ñaari waliyu koo xam ne dafa tàng fiiral diina yàlla ci bokk na ca ki nga xam ne mooy yonent yàlla Nuux ak Moussa alayhi salaam ak ñoo xam ne nii dañoo am yërmande ci jaamu yàlla yi ñu ngi noonu ngir bëgg rek nit ñi nit ñi jaar jaar ci njub bokk na ci Ibrahim bokk na ci Isa waaye mbokk ñaar yépp la yàlla gërëm ñaar yépp la yàlla gërëm Moussa nag dafa tàngoon mu ne yàlla nii yàlla na nga takkale suñu diggante yaa ngi dégg suñu borom nag ne xamal ne danaa ko araamal ci ñoom du ñu mën a dugg ci dëkk bi du ñu mën a dem fenn danaa leen piñi ci biir désert bi quarante loolu mbokk di kaawteef ci kaawteefu yàlla yàlla moo def ñii di asaabul kër trois siècles la leen yàlla tëj ci benn montagne ci benn grotte ñetti téeméeri at ñu nekk fa yu topp mënuñu ña ngay nelaw kenn mënu leen a gis kenn mënu leen a gis pendant ñetti téeméeri at bani Israayil noonu la leen yàlla def yàlla leen tëj ci biir désert bi bu ñu ñu xëy dem ne dañoo bëgg a génn soo xëyee di dox di dox léeg-léeg nga jaar ci tund yéeg lii di dox di dox ba sonn te di nelaw boo yeewoo fa nga yeewoo démb nga yeewoo waat mënuñoo fexe ba génn désert bi yàlla nag bi leen fa fekkee alman wa salaa bi ma leen wax picc yaa ngi ñëw ak lekk jaa ngi ñëw ñu nekk fa pendant quarante ans ba mag ña nga xam ne ñoo doon diineen Moussa ñëpp faatu ci 40 ans yooyu ci la Haruna faatu ñu ngi noonu 40 ans yooyu ci la Moussa faatu ba génération ndaw yi ñoo fa nekk bokk na li ñuy wax ku ñuy wax Yusha ibn Nun moo ànd ak ndaw ña fa desoon yàlla def ci seen biir xol ngëm jàppale leen te la ñu dem xeex ak waa Palestine dàq leen génne leen waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala jiitu loolu wax na Moussa bul tiisu ci natt yu may nar a teg say-say si nga xam ne ñoom ñooy bani israil kon xam naa ne Cheikh Ousmane dañuy jëlaatal xaala fa innaha muharrama bi insha allah qala fa innaha muharramatun alayhim arbaina sana yatihuna fi l-ardi fala tahsa ala l-qawmi l-fasiqin واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين jazakumullahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ne watlu alayhim naba naba ne watlu alayhim naba bnay aadama bilxaq e way jàngal ci ñoom ñaar xabaaru ñaari doomu aadama yi ci dëgg is qarraba qurbaana ba ñuy jégeelee sarax bu ñuy jégeel fa tuqubbila min ahadi min ahadihima ñu nangul kenn ka ca ñoom walam yutaqabbal min al axar ca kenn nangulul keneen ka qaala la aqtulannak mu ne yow de dinaa la rey qaala innama yataqabbalu allahu min al min al muttaqin mu ne ko yàlla du nangul lu dul ñi ragal yàlla la in basatta ilayya yadaka li taqtulani boo tàllalee sab loxo jëm ci man ngir rey ma it maa ana bi baasitin yadiya ilayka li yaqtulak man day duma tàllal mukk sama loxo jëm ci yow ngir rey la inni axaafu allaha rabbal alamin ndax man day damaa ragal yàlla mi borom bindaafan yi inni uridu an tabua bi ismi wa ismak wa wa wa ismik man day maa ngi bëgg nga delloo mooy yeyoo sama bakkaaru rey bi ma rey ak bakkaar da nga xam ne nii yoroon nga ko fa takuuna min ashaabi naar su ko defee danga bokk te ñooñu sawara wa zalika jazaau zalimin te loolu rek mooy fayu tooñkat ya fa tawwaat lahu nafsuhu qatla axiihi noonu la ko coobaralee bakkanam ba rey doomu ndeyam ba fa qatala mu rey ko fa asbaha min alxaasirin noonu la xëyee bokk te ñu perte baasa allahu guraban yabxasu fi l ard noonu la yàlla yónnee benn baaxoon biy gëstu ci biir ca suuf sa li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axiihi ngiree mu xamal ko naka lay suturaale ay nëbbee lii di ñaaw téef doomam doomu ndeyam ba qaala yaa waylataa mu ne ewaay ankaa nga ñal na ma a ajastu an akuna misla hada alxura ndax man lott naa ci mel ne baaxoon bii fa uwaariya sawata axi ba mën a nekk di suturaal di lab sama ñaawteefu mooy jëmmu doomi ndey bi fa asbaha min an-naadimin noonu la xëyee bokk te ña nga xam ne dañuy réccu mi ngi noonu bokk suñu boroom dañuy jàngal fii ay istuwa te mbokk xam ne ni téere bi yàlla bi daa fees ak istuwa histoire day tax ñu xam li fi xewoon waaye xam ni ñuy dundee pour préparer ëllëg boo xoolee sunu maam yi tamit bokk na luñ daan yara seenu njaboot muy ay léeb léegi-léeg lu ci bëri sax daawul nekk dëgg waaye dañ ko daan wax ay jaar-jaar masalan dañ naan samba seytaane amurum julit loolu dañ loolu dañ ko daan wax ku ma am ndey ku ma amul ndey di lépp ay lépp yoo xam ne dañu kii def lu baax li mooy mu jëm même bu sonnee au début kii def lu bon li mooy mu jëm lu mel noonu nit moo tax bokk jàng siira baax mooy yéen ndaw ñi mooy jàng jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng jaar-jaar ay saxaabaam loolay nekk ci yéen ay référence lan la waaye da ngay xam ni mooy luy suuxat seen gëm di defar seeni jukko bi nga xam ne tubaab bi bëgg nañu doomu aadama yi am seen xalaat ca la ñu créé la nga xam ne mooy film yi aventure yi revue yi bu kenn xamul loolu sax ci loolu day tax ba sëy du ko yàq borom bi nag yóbbu ñu fa gën a kawe ci sooru doomu aadama te mooy yonent yàlla aadamaa ngi dund am ay doomam lan la yàlla tëraloon ci seen sharia bu dee ne histoire ba dëgg la noonu la ko bari histoire nettalee mën na am leneen lu dul loolu moo leen boole waaye bokk na li siiw ci seeni téere dañ ne yonent yàlla aadama par ñaaru daan jur mook Hawa dañ daan jur góor ak jigéen léegi góor gi nga xam ne moo juddu daaw jigéen gi mu àndal araamal na ko ndax ñoo bokk benn biir jigéen gi juddu déwén lay àndal su ko defee góor gi juddu déwén moom mooy séet jigéen bi juddu ñu rek ñu ne mu am ñaari doom kii di Haabil nga xam ne nii moom moom moo am ab seexam Qaabil juddu am ab seexam léegi normalement Haabil dafa war a jël seexu Qaabil Qaabil jël seexu Haabil waaye kii di Qaabil yàlla def ci moom ak caay-caay mu daal di ne Haabil man hey kii sama seex bi lay séew de mu ne ko mais loolu amoo ci droit si seex bi sama soxna la yow kii ma seexal nga war a séen mu ne ko moom lay séen ah ñu ne waa kon nañ dem yàlla atte ñu yàlla atte ñu ñu génne sarax wala borom bi naan is qarraba qurbana ñu génne sarax bokk di luy bani Israel yi di wax la waala ñu ne gi nga xam ne mooy Haabil ab sàmm la woon mu dem ci gétt nga xool kuy ma fa gën a rëy indi ko kii di Qaabil nag ab baykat la woon mu dem gub yi gën a doy waar ci tool ba moom la la dina indi biñ ñëwee teg ko safara jóge kaw asamaan jël kuy yi booba it amuloon ay faqiir noonu la leen yàlla di nangule ba xatta yonent yi daan ñëw gannaaw ba daan jihaad buñ masaan gañee safara moo jóge kaw asamaan jël ngañaay yi suñu yonent yàlla Muhammad la yàlla daganal moo ko saxabaam yi nekk ngañaay léegi nag ki nga xam ne ni mooy Qaabil bi mu gisee Haabil lañ nangul mun na ko yow dinaa la rey yow dinaa la rey gis ngeen ah bi ne bi mu ne dinaa la rey ki nga xam ne nii moom mooy Haabil ne ko ah man de boo jógee it ne dag may rey ngir àdduna man de dama jóg mukk ngir rey li ngir àdduna yaa ngi dégg duma ko def mukk te it loolu mbokk jullit gànnaa yow loolu na doon yow politicien nga na doon loolu takk der nga na doon loolu kum mën a doon galluwaayu mbokk xam ne ni ay jullit duñu jóg di dajante di reyante ngir mbiri àdduna yonente bi alei salaam nee na ñaari jullit fu ñu daje ak seeni arme ki rey sawara la jëm ki ñu rey sawara la jëm gis ngeen loolu man du ma ko def mukk ah léegi nan damaa ragal yàlla mi nga xam ne nii moom mooy borom bi ndaa ko yow nag bu la neexee nga ñoo rey ma da nga yóbbaale bakkaar bi ma rey bokk boole bakkaar yi nga doon def na ka jëkk loolu it mbokk day wane ne nga du ne nit ki buñ ko reyee mboolem bakkaaram ka ko rey du koy jël déedéet ki ko rey def na bakkaar bakkaar moo xam ne bu jàppee ne rey gi dagan na ci jullit loolu yi da ko yóbbu ci ak kéefi su jàppee ne mi ngi def lu garaaw mooy def na lu garaaw waaye da nga xam ne dañ koo reyee nit moom ci boppam am na àq bu ñu jël ci moom mooy àq bi gën a rëcc àq yi ap naa nga moom moon àdduna ñu jël ko moo gën ñu jël jël sa bakkan àq boobee yàlla dana ko ko fayu yowmal qiyaama su doonte ne boole na ca gëm gu sell loolu dana ko yóbbu àjjana insha allah waaye même bu dee dañ ko roy te moom yorul ngëm gu sell wala boog moom it amoon na ay bakkaar masalan mu mënoon na roy keneen moom moom moom ci boppam firiwul kon ne directement ne ku ñu roy rek da ngay dem sawar da ngay dem aljanna waaye nag am nañ yaakaar bu rëy ci yow ab jullit ñu toll ko rey ko ne àjjana la ñu dem loolu moom am nañ ci yaakaar mu ne ko da nga boole bakkaar bi ma rey ak bakkaar say bakkaar yow nga nekk ci waa sawara te loolu mooy payu la nga xam ne mooy tooñkat yi waaw léegi nag mu des li ñuy tuddee mbokk légitime défense mooy benn waay ngi nii amoo benn intérêt yow pour rey jotuwu leen dara moom moo jóge fële rek ne dalay rey léegi luy pexe yeneen tabaar sam laaj nañ ko waaw bu benn waay jógee fële nekk ne fokk mu jël sama alal lu may def mu ne bu ko jox sa alal mu ne bu xeexee man pour jël ko nag mu ne ko ah nga xeex ak moom waaw bu dee nit daf maa daf maa rey nag mu ne ko bu la reyee nga deew loolu mën na laa yóbbu àjjana te yeneen tabaar sam nee na man jaahada duuna maalihi man qatala duuna maalihi fa qutila fa huwa shahid nga xam ne daa jóg ngir défendre alam ba ñu rey ko kooku day nekk shahid wante ni li ngeen waxoon ci waxtaan yi passé it doo dégg mukk ñu ne lii ku ko def dafa nekk shahid nga ne ko mi ngi àjjan parce que lan jigéen buy am doom faat ko shahid mais ndax day tax ñu ne fàttam nga àjjana déedéet dañ koy yaakaaral àjjana kon loolu wàññi ne ko waaw su dee maa ko rey mu ne ko boo ko reyee mu dem sawar kon ki nga xam ne dafa ñëw di la attaqué yow mosoo xalaat rey ko du loo rey ko moom moo la attaqué yow ngay défendre sa bakkan défendre sa alal ba mu moom mu farte de moom ngay perte loolu it moo tax ba yow sa jubluwaay bu nekk rey ko mais nga nekk défendre sa bopp bu dee nag défendre sa bopp mënut a nekk lu dul nga rey ko boo ko rey amoo ci bakkaar waaye tey musan bu na fi yor jaay si jub si la yaa ngi fekkal xam nga ne boo demee tànk yi mucc dañ naa la demal tànk yi mucc bu ko rey amaa nag bu dee moom fekkal la yor nga xam ne bu la jëkkee dóor nga dee yow da nga koy dóor mu dee loolu dara newut almuhim daal yow jurit fexeel ba yow bul yéene jóg rey sa mbokk jullit ngir intérêt àdduna amaa bu ñuy légitime défense loolee même suñu loi yi ñu tëral suñu kii yi sax d'accord nañ ci ñu ngi noonu waaye waaraate gi ko frère bi waar yëpp taxu ko dellu gannaaw noonu la ko bakkanam yóbboo mu rey frère te yéen mbokk ku nekk dafa war a ñaan yàlla musal ko tey bakkanam yonente bi alei salaam mu sànni waaraate bokk na lu mu daan ubbi wala auzu billahi taala min shururi anfusina yal nañu yàlla musal suñu ay bakkan kon tepp bànneexu bakkanam moo tax mu rey doomi ndeyam boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay borom bi nee na noonu la xëyee doon la nga xam ne mooy ki perte loolu it muy wane ne mbokk nit ki ku ko mën a jur mën naa baax mën naa bokk yéen waa Sénégal jàpp bu leen jàpp ne ku sant Sarr rek daa war a baax bu ko génne ñu fokk mbaxane yi suñu dàll yi raam jëm ci moom ndax nit mën naa baax ba gën a baax aadama alayhi salaam teewul gis na doomam gi jëf di bon jum def kon mbaax du lu ñuy don mbaax du lu ñuy nam mbaax yàllaa koy baaxe ku ko neex ci ay jaamam ak ku mën a doon borom boobu subhanahu wa taala nee na rey na ko bi mu ko reyee perte la waaye nag jaaxale na parce que mooy bakkan bi jëkka dee na la aada aadama alayhi salaam deewugul mu ngi dund bakkan bi jëkka dee jaaxale na bokk na bani Israël li ñuy wax nee na da ko bett ca àll ba fekk ko muy nelaw mu dóor ko benn xeer looloo ko rey léegi nag lu mu koy def yàlla subhanahu wa taala daal di yénni benn baaxo am na ñu ne ñaari baaxo ñoo ñoo xeex ci kanamam kenn ki rey moroomam bi mu ko reyee moroomam daal di ñëw gës ci suuf gas gas gas gas ba mu xóot mu jël moroom di dugal ci suul ko mu ne waaw man nan lay bañ a lotte ba man ne mel na baaxoñ bi sama frère bi may tiim te gis nga ba mu ko reyee rek la di co am sama frère bi ma tiim di ko xool nii xanaa lotte ma bu mel ne baaxoon bi ca la gase daal di koy suur te mbokk gis ngeen suñu borom jàll wa ala li mu wan ci doomu aadama yi jàngal leen ci ay mbindaa fanam te it yéen ndaw ñu dugg ci internet bi da ngeen di xool rek la nga xam ne mooy dundu baaxoon yooyu mooy kurbo yooyu lu yéeme la te da ngay gis ne ñoom tey jii bu ñu amee kenn ku rey ci moroomam ci tooñ ko daañu ko wóor ba jàpp ko bu ñu ko jàppee dañuy def benn géew bokk na lu yàlla yi def mooy bàyyi muy jigéen mooy seen chef gis ngeen ni yeneen teelu Suleymaan ba mu jaaree ko faranoom ba xaalat namlatun mooy jigéen mooy seen chef léegi bu ñu toogee chef bi day toog ak i conseiller daan mun mun mun mun mun mun bu ñu demee bu jàpp ne kii dañ ko war a rey chef bi bu waxee ordre rek baaxul ñu ñëw ci kaw dañ koy tef ba mu dee ñu jël ko yóbbu ko suul ki jaawloo ci ñoom noonu lañ koy def dañ koy rek gis ngeen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ala kulli xaal noonu la ko wone donte ne doomu aadama yu bëri it waroon nañu jàng ci muusuwaay yi day di gorobu ca àll bi gis ko fa def loo xam ne nii eh waaye xanaa gisul muus moom bu defee lu muy def pare day gas suuf ko gis ngeen ak a neexoon ñu roy ci muus yi kon nit moom mu ne ak a neexoon mu roy ci sama ci ci baaxoon bi borom bi subhanahu wa taala loolu mu waxit ne muur sama ñaawteefu mbokk bi mbokk ak néew dañ koo war a suturaal nit ki bu ñu xasee ba ne dee na rek première chose nañ ko muur loolu tax ñu si gën sapeur pompier yi bu ñëwee ci accident kuñ gis na dee na rek dañ koy daal di muur loolu yàgg na ci doomu aadama doomu aadama yi islam daf ñoo jàngal ñun nit ki bala ñu ko suul kenn du ko génne yaramu neen di ko suul bala ñu ko suul fokk ñu suturaal boo mu am ay cas yu xaw a compliqué mooy ki nga xam ne dafa dee ci jihaad yére yi mu soloon yooyu lañ ko war a suuli keroog xaswatu Badr non xaswatu Uhud ki nga xam ne mooy Mus'ab ibnu Umayr nga xam ne mooy premier ambassadeur de l'islam bu yonent bi yónni woon Madina amul woon presque vingt ans keroog xare Uhud lañ ko faat biñ ko faatee benn turki la amoon benn turki boo xam ne buñ ko xëccee ci bopp bi tànk yi feeñ buñ ko xëccee ci tànk yi bopp bi feeñ ñu ngi lay pexe yonent bi ne muy ut am ñax ñu indi am ñax muur tànk yi te lañ koy dugg si loolu muy wane ne doomu aadama bu faatoo même bu doon ay carton la ñuy wut nañ koy sutural dugg ko suuf ay percalique médicane ak yooyu lu baax la mooy mooy lu gën a rafet lu weex mooy lu gën a rafet waaye ñun bu ñu amul lu weex am nañ mbàjj bu ñuul ak bu chocolat yëpp ci bokk yëpp nañ ko sutural dugg ko suuf lu sawat a axi nee na nag keroog ba mu ko reyee ba pare nag la doog a rëccu te mbokk loolu la seytaane di def seytaane day xiirta doomu aadama ka masali seytaan is qaala lisaan ukfur ukfur ukfur falammaa kafara qaala innii barii'un minka waaw ba nga demee ba def ak kéefër nag mu ne la dara naa ci yow pare naa ci yow te mbokk kii li mu def mënutu ko mënutu ko rectifier loolu kon ñu gis ne tamit doomu aadama di war a bàyyi xel la nga xam ne mooy bakkanam rawatina ci mer lu benn yéefar tubaab boo xam ne léegi benn livre bu gën jàpp naa xamul suñu islam mi ngi ko tuddee les trois minutes di jaabal nee na ñetti minutes seytaane dana ci yàq dundu doomu aadama am na ñoo xam ne mer gi ñu mer ci trois minutes te la ñu rey xatta seen jabar wala rey seen doom trois minutes te la ñu fas seen seen kii trois minutes te la ñu def jéye yoo xam ne ba trois minutes te la ñu xaru looloo tax ba doomu aadama dafay war a di jàng maîtrise ci boppam rawatina yëpp mooy bala ngaa mer nga xalaat ni mer sa noonu la heure boo meree ngay wax auzu billahi min asheytaani rajim nga bàyyi xelit ne mbokk adduna ak li ci diiram jarul doomu aadama ngay rey sa mbokk doomu aadama loolu boo demoon suñu àll bii da ngay gis ñoo xam ne wallahi maa ngi dëkkoon ak benn soxna boo xam ne borom këram te tool ba lañ ko rey ci ab sëriñ la woon ndeysaan ndax ay tool lañ doon xëccoo déedéet aw dig aw dig lañ doon xëccoo loolu ñoo ko borom Dakar xëy na du ko xam waaye dig bi mooy la mooy yow sa tool mi ngi yem ci miir bi kii toolam mi ngi yem fii nawet dem nga tey la ñëw daal di ruut sa tool indi ko fii jël ci daal à peu près ay dix mètres vingt mètres waa ji bu ñëw ne la waaye yow sa tool fee la yem fii la yem fii la yem noonu la ñu xeexee ba kooku ban fetal lañ ko dóor ci ma lay wax mun na jàngal daaw te lu ci bëri ay doomi bàyyi la ñu doon loolu mbokk moo yàgg ci seytaan da ngay dégg lu yàggul dara rek gis naa benn apprenti boo xam ne fii ci Colobane cent franc ci la reyee morom ci yaa ngi dégg lu yàggul dara suñu benn doom boo xam ne maa ngi dañu ànd ak Bilal Thiam ya kii semaine bii rek dajeeg papam mu ne ma sama doom boobu yaa ko tuddoon ñu ngi ko rey fii ci stade amitié ci téeméer lañ ko rey loolu mbokk ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax loolu kon suñu borom bi ñuy nettali yi nettali ñu ko rek pour day lépp ak day kii mais pour pour bëgg doomu aadama ba fagaru mooy ci leen fitnay xaalis mooy ci leen fitnay jigéen mooy ci leen fitnay ngóor lu mu mën a doon jarul bakkanu doomu aadama yal na yàlla wàcc jàmm suñu réew yàlla may ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain subhanallah subhanallah xoolal bi ñu wax rek nee na samedi bi passé rek am na ñetti nit ñu rey ci Sénégal ki paakal ñoom rey ci Sénégal barki démb rek amul ko xam dafa lay jabar tàggalam démb.
xoolal koo xam ne mu ne jabaram la rey Kenn ci ki- paak ah kenn ki ñaari- ñaari jabaram.
xoolal kii dëkk bu ñu wax daan xooma ñaari soxnaam.
France ñooy discuter lu banal. ñu jël baat ak jàmm.
subhanallah subhanallah mooy mi ngi ne rek loolu tax ba vraiment jàngoon alquran yi dafay baax nit ñi di ko tasaare ci nit ñi Kenn ki ñaari- ñaari sœur.
waaw Kenn ki am 15 ans, kenn ki am 17 ans.
xoolal loolu Yàlla seen paroi moom 21 ans.
xoolal loolu Parmi deux copines. Petite sœur bi rek ñu baat ak jàmm.
subhanallah subhanallah subhanallah ala kulli xaal yàlla na yàlla doon ñaar fii yàlla na fii waaw
damay laaj ci kaw Jibril ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan Jibril ah Jibril da day wàcc ci yonent yi yonent yi bëri wàcc na ci ñoom moo tax ba yahud yi doon wax ne yow nee nga Jibril mooy wàcc ci ñun kooku suñu noonu la waaye Jibril ci yonent yi bëri yàlla moom la ko ci yónni moom mooy principal yonent yi malaaka bi wàcce risaala mi ngi noonu wallahu aalam salaamaaleykum naam damay dégg da ngay wax toujours maanaam comme ki newul dëgg yàlla mooy jubal mooy sant waaw mais ndax amul sabab bi nit ki ki yàlla réeral da koy yaay wala la wala ndax ci mbaaxu yàlla rek ci baax yi ndax doomu aadama bu jubee ndax ab sabab amu ca dañuy jëkk a wax ne njëlbeenu mbaaxu bi yàlla la waaye yàlla mooy alxakim alxakim képp ku muy réeral ci xikma la la réeral képp ku muy jubal ci xikma la la jubal loolu la ab jullit war a xam looloo tax ki nga xamee ni nii dafa jub doole rek nag day sukkandiku te la nga xam ne mooy ay effort am day xam ne yàlla moo ko baaxee te mooy yàlla ko may mbaax ba pare jubal ko loolu daal mooy mooy la nga xam ne mooy mbir bi suñu borom yàlla wa ma rabbuka bi zallamin lil lil lil abid du toll mu koy jaam ku mu réeral rek am na xikma bu tax ku mu jubalit am na xikma bu tax wallahu subhanahu wa taala alam wax na waaw ñu mujjee ci ñaar ñi rek bismillah waaw Yonent bi lu mu waxoon ci kurus.
ah Kurus, kurus.
yonent bi lu mu waxoon ci kurus yonent bi mosul gis kurus waaw yonent bi jamono kurus amul woon li ñuy wax daal kurus jamono après na xew lañ koy wax daal lu gën a dëgg dóoru mooy bu dee ne la gënt lu ñuy zikrullah mooy baaraam yi ñuy yàlla rek mooy la gënt lu ñuy zikrullah boo dee moom la ñuy suuraale kurus bi bu dee ne tey dañ kaa jublu konte kese konte kese dama bëgg a wax laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir téeméer ma wul kurus bi ma koy compter compter kese bu ñu wax ne kurus bi nekkul lu baax amma bu di li lislaam di bañ mooy kurus yi par parlo li lislaam di bañ mooy foo toll gàddu si kurus bi wane ne maa ngi def zikrullah ak yu demee noonu ba nga xamee ne daal ci gàttal loolu mooy la gën a digg dóomu lañ koy wax su ma la waxee lu gën a digg dóomu nag am na ñoo xam ne ñoo gën a taral wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñu mujjee ci mbokk bi rek ah bismillah xaalis bi ñu looy ba xam loolu
bisimilah Xaalid ibn Walid kon yooyu fàttali ko lu ma gën a dégg voilà bu dee xanaa tey tey dañuy bokk lu ñuy wax naan Xaalid dafa doy wala benn buur ndax seen diine dëgg la am du dëgg mu jox ko poset Xaalid ne bisimilah naan ko léegi nag ñu ne bis boo nee bisimilah Xaalid ibn Walid daal di ko looy lekk looy naan lépp doon na am ak lor waaye loolu borom xam-xam yi caabi yi ñoo koy wax rek ñu nit daal bisimilah ngay doy loo fexeel ba daal lépp loo xam ne lor la bu ko lekk suñu borom subhanahu wa taala mu ne wala tul ko gaay di ko mën a tëral loolu lor ba bu ko lekk waaye leneen lu mu mën a dal looy war a lekk waxal bismillah mi ngi noonu insha allah dara du la ca lor wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain